bismillah barke borom tuuba asalaamualeykum wa rahmatullah ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar gannaaw loolu yi seen naafila guddik tey gi di guddik ñaareel gi ci weeru koor Serigne Souhaïbou Mbacké nee guddik ñaareel gi ci weeru koor ku ci julli juróom benni raka bu ci ne nga jàng fatiha benn yoon jàng inna aataynaakal kawsar ba saar jeex fukki yoon nee na ku def loolu dees na ko jéggal bàkkaaram yépp bala moo jóge fa mu ko doon defee te it dees na ko bindal tuyaabay junniy xaj ak junniy omra ak yoolu ku saraxe junniy dërëm mel na ne it ku seeti junni ñu wopp mel na ne it ku gunge junniy néew mel na ne it ku jàng ab kaamil te it dees na ko bindal tuyaaba ju ëpp jaamu yàlla ak juróom-ñaar fukki at yàlla na ko yàlla man loo tanu def ko te def ko na mu ko taamoo te mu nangul na ko te làqal ñu ko fi yàq yëggul barke Cheikhul Khadim